suprême nee na ci recours buñ fa yóbbu woon dëggal na lu conseil constitutionnel nag maa ngi rafetlu effectivement lu xew di wane rek ne c'est la vitalité de notre démocratie et de notre état de droit ñaareel bi mooy euh, kontaan naa ci lu ñu libéré Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye sama première semaine de campagne bi Nous, on est parti les régions sud. Économiquement, il y a beaucoup de problèmes. Et nous japonais nous dans les organisés en pôle régional de développement. Pour Kaolak, pour Tambacounda, pour Casamance. Parce que comme, comme au Sénégal, 80% d'entre eux les témères, je reviens à mini région de Dakar, peut-être un peu région de Thiès. Je vois que beaucoup de nos compétiteurs, Solène Deglo, Nénanou, Nénanou, d'accord nañ ci industrialisation am na sax ñuy wax ne mën nañu ko jàngal alhamdulilahi rabbil alamin ku nekk nag sa neexaayu baat moo lay yëngal euh, mais terewul quand même nga xam ne euh, su buum buum yi tëngee da nga koy yeew ci bopp yekki kiw kuy j'ai entendu parler de monnaie euh, ñu ngi ciy wax ça va un dans tous les sens dégg naa sax Amadou Ba nee na la monnaie c'est on on ne joue la monnaie il a raison mais on ne joue pas aussi le foncier yàgg nañ ko wax ne nañ ñun on une politique monétaire pour l'industrialisation sur cent Sénégalais qui veulent du travail dix rek nañu mën a am ñoo mën a am liggéey foo dem loolu loolu lay jooytu dans le sud fu ma jaar ñu am lu ñuy def ak ñu ngi ci Jakarta yi wala ñu ngi ci commerce bi ñu ngi ci ambulant ay gësala lëj kese partout c'est la même chose donc ça veut dire que ça ne marche pas Donc si ça ne marche pas, vous ne devez pas continuer dans la même direction. Et c'est la direction que nous propose Amadou de Benno Bokk Yakaar. mënta il faut changer de direction. il faut une rupture une rupture responsable nag laa aujourd'hui si vous regardez les candidats celui qui est capable de porter les espoirs de la Casamance c'est bien moi on aura une banque populaire une banque populaire de 50 milliards de francs CFA pour traiter ces secteurs informels les femmes qui transforment les les les produits foo dem loolu lan ma ne man de maa ngi ci transformation yi loolu nañu war a jëlaat réorganiser réorganiser ko dans les filières agroalimentaires c'est très clair dans nos têtes moo tax ñu jàpp ne cette banque populaire dédiée au secteur informel dafa war a am pour régler définitivement le financement jigéen Sénégal war na dépasser calebasse na